génn mhm. Ousmane Sonko dafa nekkoon euh, ci grève de la faim mhm. ginnaaw gi ñu gis sen délégation député wala sax ñu bokk ci askan demone ci Touba Mbacké mhm. le Khalif général des Mourides jël ay tàndarma ci yóbbante ko ko ci ginnaaw gi la arrêté grève de la faim bi ñu dégg ci ay bëss bi ñu génn que Ousmane Sonko reprendre na grève de la faim lu ko waral wa liko waral mom wax nako Ousmane Sonko mom dafa am ben chance bu ko yalla defal. mom mhm. lim nar. Mhm. limu nara def da koy wax bam mu leer ñëpp dégg ko. Mhm. te lool c'est important ci leader. moy nga fexe ba lu situation metti metti nga wax nit ñi li ngay def lan la parce que nit ñi moom bu xamé li ngay def rek même bu fekké ni dina leer seen bop ñu xam ñom nan lañ ci taxawé parce que li am li am solo ci leader moy nga fexe ba crise de confiance ba baña am sa digganteeg peuple bi. Ousmane Sonko moom lim nar wax na ko grève de la bi mu ko lancé yaa ngi dégg man mii di wax ak yow Imam Dramé damaa bokkoon ci ñu ne ko lànkal bul bàyyi grève de la bi. pour la waaw moom laa lay wax ni boo ma dégloo rek ma wax la ko. bismillah ni ko bu ko baax. Mhm. ñu nekk ci loolu mu lancé ko parce que man bu ñu ma tegoon loo xam ne lu jaaduwul man en tant que ab imam dama koy lancé. parce que xeet la boo xam ne xeetu xeex xeexin la boo xam ne li nga ci jublu mooy wane ne sa àq yëpp xañ nañ la ko. na nga xeex même booy dugg bàmmeel nga xeex waaw Ousmane Sonko man li taxoon ma bañ mooy. Hmm. damaa jàppoon ni dañ koo jaay doole singili ko acharné wu ci kawam waaye réew mi tamit ñun dañoo nangu ni réew mi dafa am kilifa. Hmm. man boog damaa gëm kilifteef. Hmm. donte du li kilifa yi di wax lépp d'accord naa ci. waaye nangu naa ni réew mi dafa am ay réalités sociologie yu fi am. yoo xam ne ku bëgg a wut kuy wut réew mi il faut nga sóoraale ko. d'accord mais moo tax ku mel ni sëriñ ne Serigne Mountakha hafizahullah wa ayyada wa nasara. na ko fi yàlla bàyyi. amiin bi mu ko ñaanee ni ko bàyyil Ousmane Sonko ñi ànd ak moom ñëpp di ay doomi daara di ay doomi soxna ànd ak moom ci dëgg ak Sénégal ñu ne ko sëñ bi lim la ñaan may ko ko ku mel ni sëñ Abdou Mbacke maa ngi koy nuyu au passage. bu daaru moxti sëñ Cheikh Coro Mbàkke sëñ Habib Si parce que dafa am ñoo xam dañoo fës ci wetu Ousmane Sonko taxaw ci il faut ñu nuyu leen mu mel ni sëñ Fàllu Chouaïbou maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu ku mel ni sëñ Cheikh Saliou ah sëriñ Habib Si soxna Umu Dabaax bu Cheikh Alhaji Abdou Aziz mën naa cee lim bëgguma lim parce que mu limee damay juum ñooñu dañoo bokk ci doomu daara yi ak doomu soxna yi gëm ni réew mi ngor dafee war a des ñu taxaw di wax liñ xalaat même bu yow ba yowmal xiyaam di taxaw ñooñu ñëpp ñaan ko liñ ko ñaanee Ousmane daal ni ah li ma sëñ bi ñaan dinaa ko may bàyyi grève bi kon liñ doon xaar ci li ci topp comme Ousmane dañ koo jàppoon ci euh, dañ ko teg injustice yóbbu ko kaso ni dafa sàcc portable yóbbu ko kaso mu grève mu lancé grève de fin sëñ bi ñaan na ko mu bàyyi li ñu doon xaar mooy ñu génne ko mu ñibbi këram waaye boobu mu jóge ci kan ah ku koy bàyyi ku koy bàyyi dul ko ko fa tee sëñ bi ñaan na ko waaw mu may ko waaw après ñu bàyyi ko non dama la wax ni li nga doon xaar mooy loolu loolu laa doon xaar man man jàppoon naa ni ci bi ko sëñ ba déglu rek man boo ma dégloo rek ma wax parce que ci télévision laay waxee dama bëgg ñu dégloonte bu baax ba ñu ruubee waxtaan wi bisimilah waxal waaw dama la wax ni la mhm. bi ko sëñ bi ñaanee mhm. fekk lu jiitu sëñ bi di ko ñaan ñu bari ci société civile bi ñaan nañ ko mu bañ mhm. classe politique bi ñu bari ñaan ko mu bañ waaw mais bi ko sëñ bi ñaanee mu xam ne sëñ bi kum ñaan nga may ko mhm. te du c'est la première fois muy may sëriñ bi dëgg la yàgg na di ko may te man mi di ko wax xam naa ci dara parce que man bokk naa ci sénégalais yi nekkoon ci digganteem ak sëriñ bi mhm. yaa ngi dégg te it ma témoin ci sénégalais yi ni sëriñ bi condition yi Ousmane Sonko nekk neexu ko man wax na ko sëñ mu Mountakha ci boppam. Mm. nee na ma su ma sañoon Ousmane Sonko fee mu nekk du ma fa du fa fanaan. moom moo la ko wax yow ngay dégg. man Imam Dramé du man kese la ko wax wax na ko képp kuy gor di jullit te dem fa seeti ko. dox na ci ay jéego kon. du benn jéego du ñaari jéego moom laa lay wax nii rek man bu ñu dégloo rek ma wax la lépp. Uh-huh. kon sëñ bi moom yéene ji mu amoon mooy ñu bàyyi Ousmane Sonko féexal ko mais. xanaa kon ñi mu ñaan sëñ bi dañoo bañ. dem ñi Ousmane Sonko ni mu nangoo loolu ñu ñi mu ñaan xëy boo leen ci laajee dinañ ci wax man maa ngi lay wax rek logique gu sëñ bi moom sëñ bi moom moo doon Ousmane Sonko bu bàyyee grève de la faim bi rek mooy ñu féexal ko mu dem toog këram mais bu ñu koy topp ñu continuer di ko topp xam nga mënta nekk waaw ah, ma daaneel sama logique mais mais li nga wax noonu xam nga mënta nekk Ousmane Sonko ñaan ñaan nañ ko mu bàyyi grève de la faim ah. mu may rek après ñu bàyyi ko mu ñibbi xam nga loolu mënta nekk non déglu rek ci yoon la nekk non déglu ma euh, xanaa euh, ci réewu yoon la ñu nekk man réewu yoon euh, réewu yoon juge dina àtte ñu war ko appliquer ñu bind communiquer ni duñ ko appliquer. d'accord kon wax fi leneen bam dess yoon bu fi waxati waxi yoon man ngay waxal man ci rew mi nañ ñëw ci sujet bobu inshallah allah. dama la bëgg dama bëgg xam nga man suma wax ci digënté ki xam ko melni señ mounda mom bo démé bay wax ci lo xam da ci duggal loxom dama bëgg ñu dégloonte ci bañ ci roubé ñu déglu ñu wax ci ya ngi dégg parce que man mi ci wax dama wax en connaissance de cause man dem naa du ben yoon du ñaar yoon tok ak señ bi ma wax la ne la sëñ bi yéene ji mu am te du moom kese képp ku xam ne bëgg nga lu baax ci réew mi yéene ji nga am mooy ñu génne Ousmane Sonko fee mu nekk. d'accord mais aussi mën nañ ko. ma daaneel sëñ bi bu ñu ñaanee Ousmane Sonko. waaw Sonko may ko. pour man. waaw ak yow mii sax foog naa. Mhm. Ousmane Sonko war delluwaat ci grève de la faim. Ah, moom laa bëgg a wax. sëñ bi Ousmane Sonko may na ko Sénégal yëpp xam nañ ni may na Habib si moo yóbbu tàndarma ji jox ko ko mu lekk ko. waaw te it man bu ma sëñ bi ñaanoon ma may ko. jeex yaa ngi dégg mhm. man laa la li ma jàppoon mooy balaa Ousmane Sonko di duggaat ci grève balaa fin bi dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram. foo ko teg loolu nga jàpp fi ma ko teg mooy ku toll ni Serigne Mountakha di xalif général di murit di mag moo xam ni nii magum diine la di magum lislaam mhm. bu bëggee dara ci réew mi bu dee ngor rek la ñuy wax war nañ koo mën a maye. mais xam nga réew mi réew yoon la aussi. waaye moo ma bul ma waxi yoon man ngay waxal man man Sénégal yooyu dañ koy wax nii rek Sénégal wax man Sénégal gii ñuy dund nii. am na lu ëpp doole ay yoon. Hmm? waaw muy lan. mooy moral ak éthique loolu mu ëpp doole yoon. ndax xam li ma la wax. Hmm, hmm. ma yow man ngeen yoon bu la arrangé ngay wax yoon bu la yoon arrangé wul nga wax leneen kon yooyu ñun bu ñu ko wax quoi ñun ñun suñu bàyyi juruñu ñu nii sànni ñu ci mbedd bi ñun dañoo demoon jàngi quoi nañ ñu respecté. d'accord dama laa wax ni man. lépp lu sëñ Mountakha bëgg ci réew mi. ak taxawaay bi mu am moom. ci réew mi mhm. lépp loo xam ne nii jóg na ci réew mi mu jóg génn ci alalam def ci mhm. wane ci taxawaay bu mat sëkk mhm. bu heure bu état bi nekkee ci jafe-jafe dem seeti ko mu wut solution kon buñ yégee ni sëñ bi bëgg na loolu war nañ ko def pour ormalee ko sëñ bi lii ma wax nag man la engagé d'accord d'accord yaa ngi dégg kon page boobu nañ ko tourné sëñ bi moom li mu waroon a def def na ko d'accord ndax li mu bëggoon def nañ ko wala defuñu ko question boobu dañ koy delo sénégalais yi sénégalais xel lañ yor d'accord imam kon ñu avancer hein ah. biñ togaté gis ni mhm. amna ay jigen yu nekk ci biir kasso bi di ay jigéen te ko xam jigen ci société bu melni ni société sénégal nga xam ñi ñu gëna fonk euh, moy jigen deug la ñu koy dégg leen ni dañuy def grève de la faim parce que seeni ak ak seeni yelleef respecté wuñ ko ci kasso bi te ñoom la leen fa yóbbu kat mooy cause Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko ni man sama moral ak sama éthique mayetuma man ma tëdd fii di lekk di naan te jigéen ñi di ay doomi jàmbur àndoon ak man di xeex tëdd ci kaso bi ni duñ lekk duñ naan. mu mu solidariser wu ak ñoom. mu solidariser wu ak ñoom loolu logique na. Mhm. te bu doon man a tamit noonu lay def. Mhm. kon lii moo sabab Ousmane Sonko. d'accord moo yëkkatiwaat yëkkatiwaat xeex boo xeexu grève de la fin bi. Ousmane Sonko te logique na. lu nit mën a expliquer la. d'accord Ousmane ça n'a rien à voir. Mm-hmm. ak li ko sëñ Mountakha ñaanoon ndax li ko sëñ mun Mountakha ñaanoon àdduna yëpp xam nañ ne may na ko ko mooy tàndarma ji ko Habib si joxoon. Mm. te lekk na tàndarma ji. d'accord nee nga.